Bitmesini takla

mm-hmm. موت الغرب أحرقا

خيب لمن لبيب ما انقضى مال أبيب مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى لمن أبيب لمن قريب لمن لبيب مصطفى نعم ابيبو نعم قريب نعم ابيبو من قفا مصطفى مصطفى مصطفى نعم الحبيب خير الانبياء نعم

sucağında Brasil. لنا أحلى متمم وكل يوم إلى الدعاء فصلي وسلم على المتمم وكل عاشر إلى الدعاء وسلم لي وسلم وسلم على المتمم وكل يوم nomuta mumeta wekululuya simbilarutiya salli wasallim wasadamimo mutamimukwamina simbilarutiya wajikutuwa fatuluyanga natuwapuwa yalala nokondalnakukono mumukahulofana yakutopatul

I'm أخير المنتجر

تكلم You could take the barab bi mu tàbbi na ci profité rek di sant mboolem waa dëkk bi ñëpp di ko tàmbalee ci borom dëkk bi di ko ñaanal yàlla seen borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem ñi mbokkoon dëkk bi ak addu bi yëpp yàlla ko yàlla boole defal ko ñaanal imaam yi yàlla yàlla sunu borom defal leen néegu yàlla bi doon fi jaamu yàlla ko yàlla nangu ci daraja yonent bi sant bu baax sunu borom mel na mooy mu fekke woon ak yële passé mu mel ne am na lu fi doxoon ci diggante bi lu bari yàlla sunu borom dogal seen wàcc jaare foofa yàlla bàyyi nu fi te du njàmbar du ay pexe ci coobareem ak sañ-sañam mu bàyyi nu fi ñu fi yàlla sunu borom jëlee seenu yaafus wala seenu càggante jëlewu leen fi di leen di ñaanal yàlla sunu borom fan tëdd yàlla na sunu borom bi doon leen fay xéewal te tàbbaleen jànne tur firdaws yàlla ko yàlla def xanaa rek di ci tudd kenn koo xam ne si ña jiitu ji moom lañ ci jiital di jël sunu ñaan yépp teg ko ci loxoom yàlla yàlla sunu borom jëtale ko mu jëtale ko mboolem fu néew bi di tëdd yàlla ko yàlla def mu sunu bàyyi mudu maa mi nga xam ne yàlla dogal na noonu ànd at yëpp mu daan taxaw taxawaay bu rafet ànd ko ñun ci tàmbali ba ànd ko ba ci ba muy jeex li wax yaakaar naa ne mboolem ñi jiite daayira bi xam na ci lu bari nga xam ne saa bu daan ci moom yoon woom ñu teg day mel na saa bu jaay day defar bisuma lépp loolu nag wax dëgg yàlla day rafet saa su nekk rek ñu koy daan hommage ñu ko ñaanal yàlla suñu borom yalla ko yalla yeeram ak mboolem néewu julit fu mu tudd yalla ko yalla def ci kaddu yalla nga baxam kana bi lo rek di sant bu bax ñu fi desee ni yalla yalla suñu borom bi yalla seen taxaway te dëgëral leen te defal nu jam dafa ko njaboot yëpp ak fu nit mën nek ci dara ji yonent bi bis bi nak di bis bo xamni ah, sant rek ci war ndax lu yokul wàññi ko na te bis bi yakarna ni legi mu laq yaakaar naa fanweeri at yu teg fanweeri yi moom yaakaar naa mat na waaye dañ ci santaat sunu borom bu baax noonu ñi tok di jang tay ndax bis bi dama ci andak tay sama kilifa te bis bi moko ko njëkk faane mu seri masdi gi mu tubaarite moko ko njëkk faane bis bobu ci la ma njëkk yow ne ma demal jang ma déglu la booba ñu ko tante fa la yaakaar ci boori musib bi nga xam ne sunu wayjur yu bari fi leen fi leen fekkoon sunu bàyyi cheikh jàng ñoom ak ñu bari bàyyi ak ñooñu ñëpp fi leen leen fekkoon ak moom ñoom ñu ngi leen ñaanal baax yàlla sunu borom ay fa suuf seen kaw bis bi lu ci am yàlla ko bokkoo ñoom loolu rek muy dox ba tàbb ci loxo yi ñu bari Serigne Assane Samb tamit jaar na fi Serigne Abdoul Hak Diouf jaar fi Serigne Moustapha Diop loolu suñu borom muy dimbali jàmm dimbali ñoom ñu yëpp kenn ku ci nekk rek maa ngi ñoom ñoo ko doon ànd ba ci Serigne Fallou Ndiaye mi xam si li mu ko taxawee ëpp na fukki at yooyu naandoon ko ak dikk ci loxoom Serigne yi muuram tey bis bi mu ko tàmbalee yàlla na ko àggale tey nag mu tàmbalee waat ci at yi xam ne si kenn ko tàmbalee waat ñu ci yeneen te nu ànd ko moom yàlla na ko yàlla def. yàlla mën na ko yàlla ko def ci dara yonent bi di sant bu baax nag waa daayira bi wax dëgg yàlla seen taxawaay ci noonu rafet na lool matale na dara manqué ko barke sëñ Tuubaa tey lu bari ma ne loolu ci ba def fekk ndax maa ngi ñoo bokk dëkk bi noo bokki bis bi kon lu ngeen ci def rek seen mbaax la waaye dara dara dara wala lu def ndax lu ma soxla maa ko war jëlee sama bopp ndax noo ko bokk waaye bi bis bi dégmal na si ba léegi sama kër japp na la fa taaru lepp lepp lepp daayira bi ko def ndax du jitu jang yi dik galay bi ñu fa and ak seigne aliou indi lu xewul bo xamne ci yalla suñu suñu borom séré na ni lu pet la bark seigne touba nga xamne lu bari bari ci la ko wajale sama kan ñepp ñepp ñi fa ñew ñepp yakarna ne ba legi xewul ya fa lolu ñu ci lañu indi ci agn mënu na ci agn mak sama tamay kan ñepp reer ci bark sulay indi ko ci indi yoo xam ci yeena la ci andal ak ci sell lool ak suñ lool loolu na nu saxatal yalla yalla do leena saxal ci barke xasaayid bis bi yalla yalla do do li ko mu gën ko mu delu ek fu gën ko kawe suñ jort yalla ko yalla def seen khadim nak yakar na ne bis bi bu fi dikke du fi gam ndax japp na ni bis bi ko ñeek ñeek déplacer touba fay ko ci xaalis lo xam dañ ko déplacer fay ko japp na ci dëkk bi ko jàng si musique asim nii la ko doon jàppal si loolu yëpp nag yaakaar naa du ko fàtte moom te boobu léegi yaakaar naa wàññi ko ngi yokk yàlla bu yàlla gën a kon mel leen dikkan nañ ci dëkkam dikkan ko bëgg lool te loolu bu egsi rek tàbbal ci nopp donte wax nañ ko pare waaye dañ ko sant ñëpp bàyyiwul kenn bàyyi bàyyiwul fenn si fan sant nañ baax mboolem ñi ngeen yebaloon ci ñun taxaw nañu ñun taxawaay bu rafet lool yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla yokk leen sa yi ak batin dafa ko doon ñëpp ci barkeb sëñ Tuubaa xasaay yi di sant baax suñu kilifa yi nga xam si ñoom it ñoom dañ ay mag lan waaye mbaamuloo bi nu jëm rek ñu ngi ñoo toog dinu terte dinu jàppale yàlla na yàlla suñu borom bi yàggal leen lool te wér ci bi mu mel ne sëñ Mass mi nam waxee rek moo ci am ànd ak nga xam si moom it waa dëkk bi yaakaar naa ne gone nañ ko bañ a xam jàng si na fi sëñ Asi kër sëñ Asi boobu yaakaar naa bàyyi Cheikh mi dund sëñ daam mi moom doon ma ko présenté waa dëkk bi moom mooy dëkk bi dëkk bi moom ndax Daaru Njaay dëkk bi Daaru Njaay yaakaar naa ni kenn ëppale wu leen fi kon noo ngi koy sant bu baax mu mel ne nag am na xam si dafa bàyyi ko woon ba Dakar yaakaar naa ni demoon njaarim léegi ma si rek loolu la ma Amar mi di présenté na bokk sëñ Karim Mbacke yàlla muy sëñ sëñ maam Thierno Camara na nga ko siyaat di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla sunu borom yàlla gën a wéral ci ay cëram tey di ko wax ne kontaan nañ tey ñu koy massa bu baax baax coono yi yàlla xam na ni bi ma essayé dama ne sëñ Fall na ñëw toog lu donte ñaari bëy sax mu yëkkati ko fas ñu présenté ko waaye nag ci ndigal rek la ñuy wéy loolu rek ci la wéy ñëw leen ko nuyulee moom it danoo bëggoon bu ñu dugalee tuuti rek ñu dimbali nga jëm sëñ Tuubaa mu ñëw feeral yéen ba seen xaadim dikk

سافوسة قدوسة عبد البلمة قدوسة فخر الوجه سعد غريب البدماء قدوسة فخر الوزراء Somebody Samba Kuma the Ramazan teg lu mu fa mu teg te xaalu jot nag mu def ci réew mi te xaalu jot nag mu def ci réew mi fi fan te xaalu jot nag mu def ci réew mi ku jooy mu nax la Serigne Fall ko mu ko ko Come on. saxar di jaar ba dendam lu néew mu amul ci réew ak bismillah ak wax li laay ak rasul laay ak xayril anam dama sala juran ma ne mbolo bi fatu sama waja ko ba sa ak ñaan ko ma def sala ma takife jëguti jëguti ko la def sama jëguti ko way Omar Bayal ki gën ci réew mi Cheikh Fallou Mbacké moom daaram du mank moom jottin ci baax jafon ku réew mi man nan ko waw ko ni jafon ji dafon moom juróom bi soro ak yamul ci réew inni abu wallahi bimu ni Allah ji Fallou ko defal dëri man man yëpp tëjee ku bëgg sunu maam ja am nga ndam ay wër leen gamaan bi màggal soxna jaara wër leen gamaan bi màggal soxna jaara am ku bëggul am na ndam am ndawal demal am na ndam تالي ومزيارة أغلى مسبالة مسبالة كبغم دوان دوان تالي سلمان يا أغلى كبغم دوان دوان تالي مام تير متغامك كبغم دوان دوان تالي مام جارة أغلى كبغم دوان دوان تالي مام جارة أغلى مام متنيك المنتالي أم جار أم بنم بدون والدلالي أم جار Zulu Manja am na dam demal taali taxam jaara am na ndam ku bëggum dawal demal taali sama am ja am na ndam ku bëggum dawal demal taali mu daqam basiiro ku bëggum dawal demal taali sama am ja am na ndam ku bëggum dawal demal taali sama am ja am na ndam ku bëggum dawal demal taali mam jaara am na ndam ku bëggum dawal soxna jaara yaa bën gi bambulan mu nan war tekkatoo fekkal na ko mar baa ku gàttu bay bañ a war soxna jaara yaa bën gi bambulan mu nan wal wal tekkatoo fekkal na ko mar baa ku gàttu bay riw mi tekkatul fekkal na ko mar baa ku gàttu bay bañ a war tekkatoo fekkal na ko mar baa ku gàttu bay riw mi tekkatul fekkal na ko mar baa ku gàttu bay bañ a war بكمر عقيلك بمرخات إيقة بكر بكمر أبوكر إيقة بكمر يومي إيقة بكر بكمر باكوكر تبعي بنوار مجكنا لا تبم مجكنا كماري كوجي كسر فما نخيل وفم لجل قال فناديناه ففعلنا جميعا